<clears throat> cour suprême soit mu favorable à Ousmane Sonko soit mu ñàkk ko favorable en tout cas woote nañu suba euh, que ni euh, ñëw génn ci mbedd mi tey euh, stabilité réew mi daf ci daf ci dépendre mooy li nga xamante ci boobu fay tukkee jàpp nga ne tey Ousmane Sonko mën na bokk ci élection yi ci nga xamante ni moom la ñuy détmal ak décision bi nga xamante ni moom la ñuy xaar ci juge yi foofu ci cour suprême waaw lépp mën na am demee mun nañu xaar lu ne mën nañu xaar ñu dem comme ñu ñu débouté leen ñu débouté état bu Sénégal ne leen Ousmane Sonko li saaba si wax dëgg la mm-hmm. comme mun nañ dem ñu teggi ko indi leen leneen mm-hmm. donc lépp mun na am euh, il ne faut pas danser plus vite que la musique mm-hmm. donc nañu suivre affaire yi rek li ñu mën rek mooy jàngat joxe ay piste yi nga xamante ne mën nañ koo sóor suba mais dafa am loo xamante ne il faut que ñu bàyyi ci xel xam nga dafa am benn particularité lu mën a particularité sax mais juge bi war a àtte suba di Siré Ali Ba moom baayam Ali Siré Ba moom tamit dafa àtte woon mhm. il y a il y a trente cinq ans de cela en 1988 mhm. Abdoulaye Wade mhm. élection bi mu jeexee ñoom wàdd dañoo dañoo toppoon Wade dañu ne ko émati am yow yaa woote yaa def yaa yaa yaa def appel yaa def yu ni mel ba taqal ko ci jàpp ci wàdd ak ay ñoñam gouvernement bi wala état bëggoon ñu tëj ko cinq ans moom mu bañ tëj ko un an avec sursis et c'est le père du juge qui doit juger demain. Ah bon, ok. L'histoire se répète. Mm-hmm. moom papam amoon na amoon na demlante ak chef de l'opposition d'alors en 1988. Absolument. Euh, en 2023 moom doom ji mu war a jëflante waat ak chef de l'opposition mm-hmm. te papa ji bu pexee gouvernement Abdou Diouf cinq ans lañ koy tëj mm-hmm. cinq ans moom mu dóor ko un an avec sursis ne Wade demal sa yoon parce que boobu dañu xool ba ci biir mu gis ne veille bi sax ñoom Wade renoncé woon nañ seen ay manifestations néewoon nañ arrêté na lépp mais teewul xam nga nguur rek bu la bëggee xoñoñal am fu la tee euh, du tax daf koy du tere daf koy def mm-hmm. loolu li ñu ciy jàngatee lu njëkk mooy juge bi intérieurement ak moralement man mm-hmm. xam naa état d'esprit fi muy tollu jamono ji mm-hmm. ça doit pas être facile ci moom parce que non seulement il a rendez-vous avec l'histoire waaw il a rendez-vous avec l'histoire mais tamit ak way juróom bu góor taxawaay ba mu amoon moom ban taxawaay la war am parce que gis nga fii loo fi def rek suba ñu nettali ko. Mm. te niñ koy nettali ni on ne sait jamais suba doomam mën na doonaat magistrat wala juge encore. xam mm-hmm. vrai ñu lan la war a àttewaat suba. Mm-hmm. moo tax loo fi def rek sóor ko bu baax a baax. Mm-hmm. loolu benn benn ponk la woon ci ci ci li nga xamante ne moo moo moo jëm ci cour bi ko war a àtte ak nañ koy àtte ak ak juge bi. beneen mbir bi ci bi ci bi ci jar a bàyyi xel mooy mbir mi ni muy demee ak ni muy avancé boo xoolee Ousmane Sonko moo am lente eh, buñ koy compare dañu woon Ablaye Wade moo am lente woon bee passé. mais Abdoulaye Wade da ngay gis ba mu sekkee ak 74 euh, la teg parti am ba mu tegee 74 78 mu dem élection bi mu demee 78 dem na 83 élection dem 88 élection dem 93 élection dem 2000 doog a jël élection yi te yëpp waa ji amoon na ay amoon na ay porox ndool pour galgal ko ci benn élection même ba ci en 2000 amoon na foo xamante ne war na ko fa mën a jaar pour waa ji du jot nguur gi parce que biir gouvernement euh, bopp réew mm-hmm. mais defu ko parce que chaque jour rek am na yoo xamante ne naam bu pexeem antu woon wàdd du yegsi waaye à chaque fois doon na am ay levier yoo xamante ne mhm. eh, dañ ko dañ ko doon bloqué comme li mhm. ñuy wax léegi nii ci juge bi euh, parce que tamit parfois bu ñuy bu ñuy def histoire dafay baax ñu koy wax na mu demee mhm. du caagi ne rek président ba fi nekkoon moo nekk benn gentleman mais am na foo xamante ne jaar na fa ak ay généraux historiens te diront am na foo xam ne jaar na fa ak am na foo xamante ne am am nañ taxawaay boo xam ne ko contraindre moom benn position bi kon parfois am na nekk ci suuf du duñ ci bàyyi xel des fois kilifa jël benn décision ñu foog ne daf koy jël ci teeyaayu bakkenam wala c'est un démocrate non fekk dafa sës wala mu ñàkk pexe donc kon bu ñu defee comparaison bi jël Abdoulaye Wade di ko compare di comparer ba ñëw ak Macky Sall tey ni mu dombee ak Idri euh, ak Ousmane Sonko tu te rends nettement compte que ne euh, am na ay similitudes n'est-ce pas mais tamit am na foo xam tamit kële moo fa tane woon kii. maanaam kële au moins daan na ko bàyyi ñu dem jongante ji après mu xool nu muy def élection yu duur ko dem mais kii moom daf lay taxañ écarté na le daal di daal dem bu ñu revenir ci li nga xamante ne mooy journée démb bi li tax ma yaakaar ne. journée suba bi journée suba bi autant pour moi <laughs> journée démb bi kay. xanaa cere nga réeré. <laughs> Hmm? cere dafa ah, cere bee la damaa damaa añagul ah, moo tax ay ay ay gaynde lañ. xam nga li tax ma wax loolu. Mm-hmm. mooy boo boo. lu ma waxat sax ñu ñëwati woon ci ci ci journée ci journée suba bi hmm. xam nga li tax ma jàpp ne daal mën na ci am hmm. parce que ñu ko seq ñëpp léegi ils ont compris le jeu ñëpp léegi dañoo comprendre hmm. mars ak euh, juin beeg yooyu yëpp mënoon nañ ne affaire bi am na fu mu tolloon ça tàngee quoi dafa doon def nii mais actuellement mën nañ ne les choses se sont tassées dafa taxaw donc ñoom ñëpp ñi liir yëpp koo si wéetal mu defal la benn lecture exacte ak bi moroomam di def tu diras que ne affaire bu jaxasoowee gars du ñu arrangé de bu ñu jàppee du ñu arrangé gaa yi bu ñu puusaatee élection yi du ñu arrangé kat donc ñoom ñëpp xam nañ fi ñu jëm xam nañ li ñu bëgg maintenant yan moyen la ñu war a mën a am ba yegg fa ñu jëm loolu mooy affaire bi. mais est-ce que yow jàppoon ne état bi fu mu nekk nii ils sont arrivés à un peu réduire si tu veux une partie de la population au, au silence avec l'arrestation de Ousmane Sonko nga xam ne mujjewul fenn. xam nga gars yi dañ doon wax avant bu ñu ko jàppee dinañ xam ne lépp dëgg la bu ñu ko jàppee dëkk bi nii mais ñu jàpp ko en réalité il s'est pas passé grand chose mm-hmm. est-ce que pour yow état bi jàppul ne loolu force la boo xamante ne comme réussir na loolu jàpp ko te dara xewul du ay manifestation wala 17 moo koy war a mën a tere moo tax ngeen seetlu tekka ma maa ko euh, euh, a de cela deux xaw ma mm-hmm. ma ne ko seen équation Ousmane sonk la woon mm-hmm. parce que da nga daan dégg ñemewuñu koo jàpp duñ ko jàpp mais ñu anesthésie ñu fexe ba jàpp ko maanaam euh, pat oto beneen yoon ngeen jëlee ko Koungheul ñu foog ne da nga koy yóbbu kaso nga yóbbu ko këram. ñëw barricade këram nekk ko amul dara. Mhm. bindoo texte bindoo dara. Mhm. anesthésier nga peuple pour kii il est à notre war nañ koo mën a jël tey ko. Mhm. ñu dem ba nangu ko ñun intérioriser ni Ousmane Sonko mi état mën na ko jël état na ko coppet jël. léegi bu ko jëlee dañ naan jeex na. parce euh, benn benn benn benn train la woon moom mooy locomotive bu ñu ko daggee jeex na mais xoolal mais opposition bi kan moo mën a arrangé fuli fi ñu toll nii. très bien. c'est comme une armée sans général. très bien. noonu la dem fi ñu toll nii. tu es fort Moustapha ñoom ñoom. tu sais pourquoi tu es fort je vais te dire pourquoi tu es très fort. yow sans même le savoir. Mm-hmm. tu as répondu à toutes les questions. manifestation yi nga xam ne opposition bi jot nañ ko fi organiser yëpp F24 tout confondu. Mm-hmm. fekk ñu arrêté Ousmane Sonko. y a pas eu de mm-hmm. mais la différence de demain. c'est justement message Ousmane Sonko hmm. bi euh, qui délivré El Malik faut prendre ça en considération hmm. Ousmane Sonko à chaque fois qu'il a choisi de communiquer ak peuple dañuy jàpp ne hmm. engagement mu ngi ci biir xam nga le fait que mu feebaroon noppi tekk tektaaral xamuñu mais bu délivrer message am ça change la donne dama lay wax ne conférence de presse bi ni nga ko waxee point important bi et l'information la nouveauté ce n'est même plus mm. l'événement du 17 c'est le message de Ousmane Sonko bi ñu ci inclure et crois-moi message boobu ñu inclure rek dina tax man gëm naa ni ñi nga xam ne amuñu woon yéene déplacé wu sax te ñu gëm ko dinañu déplacé wu ndax message baa tax pour te dire que conforte la ci li ngay wax ni mm-hmm. opposition bi naam mën nañu am doole mën nañu am stratégie mais mbooloo ak drainer une foule mm. actuellement une personne rek moo ko mën c'est Ousmane Sonko. c'est ça te te bi ñu ko daggee ba léegi ñoom dañu xam ne léegi dara tawatu leen. Hmm? parce euh, image bi ma daan jël mooy koo xamante ne. da nga ko caxabal depuis deux ans mënoo fexe ba teg ko ci suuf nga caxawal ba lonk ko ngeen di wër wër gi di wër géew gi mais boo ko tegee suuf dara tëwatu la ah, hmm. dara tëwatu la foofu lañ toll ak moom léegi nag bi bi bi loolu amee moo tax fi ñu tool nii opposition bi kenn jaaxalutu leen ñoom ñi fi nekk ni xam nañu kuñ si jàpp tamit ñàkk nga hmm. parce que ndegam Ousmane Sonko la ñu amul keneen ku leen di jaaxalaat léegi loolu nag dafay bokk si ne dafay wàññi xeex euh, maa ngi lire rek sànq léegi ñu ne liberté provisoire refusé waat nañ ko Bassirou Diomaye hmm. da comprendre que ne benn logique la nekk benn logique boo xamante ne te li ci li ci déplorable rek mooy logique bi xam nga gars yi socialiste yeeg yooyu au moins il mettait la forme da ngay dégg ñu ne yóbbu nañ ko ci texte bi def nañ nii def nañ lële def nañ lële parce que mais ñoom dañuy def loo xamante ne da ngay jàkkaarloo texte bi ne lii daa bleu ñu ne lii du bleu lii lii lii lii tableau tableau dafa weex ñu ne weexul dafa gris wala dafa dugal ay motif dafa def ni mais en tout cas weexul donc ñoom logique boobu ñuy demee c'est ce qui fait mal aux citoyens ay valeur kii parce que se am na loo xamante ne dëgg la ñoom ñu taxaw ci ni lii du dëgg loolu mooy li nga xamante ne mooy metti ñenn ñi nga xamante ne dañoo dañoo dañoo dañoo nekk ci askan wi bëgg dëgg gi di génn di di manifester wu ñu koy gis tout le temps maintenant bu ñu jàppee Ousmane Sonko jàpp nañ ko ñeneen ñi ngi jéem a di góor góor ay jàmbaar lañ gaa. waaye doole yemul doole yemul te gouvernement bi nguur gi loolu lañ xam moo tax fi ñu toll nii ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom mën nañ ne ñoom ñoo appauvant entre guillemets. nguur gi ah. nguur gi ah, non. nguur gi waaw pratiquement ñoom ñoo àpp au vent entre guillemets parce que ñoom ñoo ko téye tas parti bi jàpp ay responsable am jàpp ñëpp a am pour sanctionner ko lenn dong la nit di xaar mooy élection yooyu ñu sanctionner leen xam ne fi ñu toll ni bu du leen arrangé parce que am na ñu bëri ñu nekk ci kaso bi ak ñu nekk ci kër yi xam nga la ñuy xaar boo leen waxee ñu ne ñetti weer yàggul ñeenti weer yàggul mais ñooñu boo taxawee tey jii bëgg leen gëmloo ne dugal naa benn situation bu confuse boo xamante dañuy dàq élection yi ñetti weer ñi abal ñu donc loolu tamit dafa nekk benn li li créé benn passivité am na koo xam ne balaa moo génn kër boo ko nee génneel suba nga dem manifestation du dem daan saa man daal sama carte ngi sama poche ñi ñeenti weer ñu abal ñu fa leen di xaar yàggatul mais mais loolu Moustapha est-ce que euh, ñeenti weer ñu ñeenti weer wala ñetti weer ñu abal ñu wala ñoom ñoom mënuñu gagné ñoom ñu fi nekk non non xam xam nga lu tax mënuñu gagner. Ah. parce que majoritairement l'opinion n'est pas favorable. non non d'accord mais c'est-à-dire comme ni mu ko waxee nii comme si moom. non maanaam boo gisee mu wax loolu élection yi plié nañ quoi jeex na bon Benno Bokk Yaakaar. non non élection yi mais loolu tamit Moustapha foo koy teg. Benno ñoom xam nañu mënuñoo. gagner élection ñu dese après mu jeex ñoom ñu dem. Benno ñoom seen bopp xam nañu mënuñoo gagner élection. <laughs> Benno ñoom seen bopp. <laughs> Benno ñoom seen bopp xam nañ ne mënuñoo gagner élection yi. Hmm. yow bu dee bu dee bu dee observateur nga bu dee kii seetaan nga xam li xew ci dëkk bi di génn di dox di gis xam nga ne Benno mënuñoo gagné élection yi parce que élection bi combat bi kan ak kan la woon Macky Sall woon Ousmane Sonko. Macky Sall écarté mu pousse Amadou Ba mu ñëw. te xam na ne Amadou Ba ne fera pas devant Ousmane Sonko. waaw donc kon xam na ne Amadou Ba du rek quoi devant Ousmane Sonko. donc il faut tout faire donc pour éliminer Ousmane Sonko mu xool keneen ku muy jàkkaarool ko xam ne peut-être mu ëpp ko doole. mais ñoom xam nañ ne ñoom mënuñoo gagner élection gis nga dafa am aw askan fu muy toll. dafa am askan fu muy toll euh, respiration démocratique bi il faut que mu am. c'était en en 2000 c'était comme ça. fala bu de il fallait que Diouf dem Wade ñëw. Mmh. en 2012 c'était comme ça nit ñi dañoo demoon ba mais en 2024 tamit ça sera comme ça. Mmh. cest ñi il faut que ñu pousse mu am beneen suuf lu bees bu dugg si parce que am na problème yu bëri yu am yoo xamante ni boo dugalaatee continuité tey ji non seulement président bi da nga koy duggal ci contestation en permanence. Mmh. mais da nga koy duggal duggal tamit ci crise de légitimité. parce que dina tolloo foo xam nit ñi déggal bañ ko waroon déggal ak jiite par yaa maa leen jiite par te bu ñu amee président wax na ñoo ko tabal suñu bopp bàyyi ñëpp bokk élection yi dem euh, je pense que loolu dina doon loo xamante ne dina dina tax nit ñi nit ñi nit ñi doon euh, ñi ñi am président bi nga xamante ne moo moo leen gënal damay jël juste rek exemple euh, peuple mm. Mm. gis nga xam nga apartheid bi muy am ñu jël icône bi ki nga xamante ne mooy Nelson Mandela ak rôle bu am solo bi mu ci am mm. et pourtant il faisait face à un peuple blanc boo xamante ne il ñoo nekkoon dix pour cent ci askan wi bëriwuñu de mais noot leen téye leen mais naka lañ def ba yegg ci pourtant benn nit lañ ci cité mais moo porte mbir mi de façon pacifique ñu tëj ko ci lu nekk fekk ci mu dem ba arrivé daal di yegg pour parce que vent bi dafa soufflé woon am na sax ñu bëri xeltukat yu bëri ñu ne même bu dul woon Mandela dafay am parce que peuple boobu ñu ngi commencé woon di respirer li nga xamante ne mooy changement wane ne ñu weex ñi nit ñuy noote dafay war a dakk li coono yi ñu teg dafa war a dakk

léegi même je me dis bu dul woon la personne de Ousmane Sonko keneen bu ñëwoon wane li wane ni tey nit ñi toog. keneen bu ñëwoon yow boo ñëwoon wane li wane da koy am. parce que c'est c'est dafa am benn vide bu fi nekkoon boo xamante ne euh, nit ñi en fait dañ ko soxla woon. Mm-hmm. parce que PS yàgg na fi PDS ñëw fi ñaari école la fi am. mooy école Senghor école Abdoulaye Wade. ñaari école yooyu rek a fi nekk Sénégal donc école bu mujj mooy ñi nga xamante ne anti système lañ leen di woowee te euh, Ousmane Sonko jiitu ci après mën nga si dugalee docteur Abdourahmane Diouf ay Bougane ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dugg nañ ci biir mooy anti système yi donc loolu moo tax ma ma ma jàpp ne euh, ordre normal évolution des choses la loo xamante ne dëkk day am fu mu toll foo xamante ne il faut que ñun léegi nag yow boo jiitee da nga am intelligence nga accepté ko. sinon boo ko accepté wul rek da nga siy ñaaw. waaye tamit ñoom mën nañu est-ce que demuñu tamit wax gis que ni euh, xeex bi doole jaay jaayante doole xeex bi ci terrain bi di xeex ak yooyu jaaye fayatul ah. Hmm. moom fayu sax mosul fay d'ailleurs ci ñoom est-ce que demuñu ba xam ne moo fayul ñu ne donc nañu dem euh, ci justice bi parce que justice moo fi nekk. liñ leen yàgg wax ñu bañ ko ñu ne affaire bi du affaire de justice affaire de xeex la mais dem nañ ba finalement xam ne affaire bi du affaire de xeex dem ci yoon ku gañ a jël. ñoo tax tey mën nañ jàpp ne moo wane tey attitude bi nga xamante ni ñoom amee nañu ko ak message bi ñu bi ñu bi ñu délivré. non du loolu danga koy xam nga noo koy liiree da koy liiree match bi ñaari mi-temps la woon. Mm-hmm. ñu dañoo premier mi bi ñu ne waa Ousmane Sonko ñoo gagné. Mm-hmm. mooy mars 2021 dañoo ñëw ñu yëngal mbir mi ñëpp tiit. Mm-hmm. ñu appauvant gars yi ku nekk di ñaan intervention ñu bàyyi deuxième mi-temps bi ñuy jekku ku nekk di ñaan bàyyiwuñu. noonu la demee rek ñee dañoo jekkoon bi paa ñuy jekku seulement nag ñii dañoo jékku si deuxième mi fi gën a jege élection yi moo tax ñu gën a am problème mais bu doon dañ koo inversé ñi la jékkoon deuxième am ñi ñi jékku heure bi kenn dootu ko waxati. Mm. loolu moo tax ma ne noonu nga koy jàppee rek parce que ñaari phase da woon ñii dañ leen jékkoon fii bi paa ñiy jékku mais du question que ni tout juste toujours ça a été toujours comme ça. Mm. mais dafa am loo xamante ni tamit jii résistance boobu Ousmane Sonko heure bi ñu ngi naan def na trois ans ci kaso bi. bu ko wootal woon ñu ngi naan def na trois ans ci kaso bi. parce que jàpp mu dëgër. bi amoon mars moo tey Ousmane Sonko nekk ci biti ba waxtu mais su doon dañ ko woor rek mu mu dugal doq rek dam wuy ji. Hmm. day dem ñu def ko mandat de hmm. te viol la bu ñu dóoree mandat de dañu ubbi instruction bàyyi la fa ngay nelaw. Hmm. ñu ñu ñu lijjanti ko kon heure bi sax duñ ko àtte. amaana duñ ko àtte. donc contexte bu nekk ak lutte bi muy. maa ngi xaar ba nga présenté ci rek loolu laay maa ngi xaar ba nga <laughs> toog fii di présenté loolu rek xaar c'est important. tu es bon tu es bon. ak euh, sama xel ngay tëj ci. Ah. Euh, waaw soo affaire kii parce que dañu war a dem dañu war a dem euh, Kaolack. waaw. comme jaar bu Kaffrine parce que ma Macky Sall bi. da nga war a topp la tànki président de la république. dañuy topp tànk. ñu topp xam nga xam nga wax na ko. Mm. deux fois de suite sax revenir na ci maanaam.